asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ñu ngi suivre à travers Tonno Média TV maa ngi leen nuyu di leen char li wax ne matinal mbégte mooy Dóor waar boo ko déggee nag képp koo xam ne euh, mooy salon Adja Awa euh, war a waxtaan moom waxtaan bu yaatoo yaatu xool salon bi nu muy demee clients yi wala clientes yi euh, naka lañ leen nit ñi naka lañ leen ñi nga xam ne mooy gérant bi di leen accueillir tey nag dina neex lool ndax émission bi dina neex dina yëngu caméraman topp ma dugg ci biir xool tax na comme ni nga xam ne ñu ngi fi nga xam ne mooy salon Adja Awa nag fi nga xam ne moo ci Maris Adja Awa nekk fi nga xam ne moo ci Maris Adja Awa nag nekk fi ñu fekk ne ki nga xam ne mooy la gérante ñu koy wax Maguette Maguette maa ngi lay nuyu. maa lay fay. maa ci jàmm. maa sant bu baax maa ngi si jàmm. tey ñi nga xam ne mooy waa Torino Media TV ñoo la seet si donc war a waxtaan ak yow ci salon bi naka lay demee ak cliente yi naka naka ngay traité client yi ak ñi xam ni mooy euh, euh, ñi fi nekk ñëpp tey mën nañ xam tey naka ngeen di liggéey fii nga xam ne mooy salon bi. maa ngi lay nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm salon bi nag ñu ngi nii ñun ñoo fi nekk ñooy gérer salon bi aha borom salon bi Adja dafa voyage mu ngi États-Unis bàyyi ma fi man Maguette ñu ngi si jàmm maa ñoo fi nekk di nekk si liggéey bi ak client yi heure liggéey ñu ngi concentré suñu liggéey. bu ñu paree toog bu ñu amee liggéey aussi concentré si liggéey bi daal. est-ce que parfois du ngeen def sax ngeen defal nit ki benn seen benn cliente ngeen defal ko loo xam ni bugg ko mu indi leen ay ay ay jafe-jafe yooyu noonu. non loolu moom du ñu daal ndax cliente ñun bu ñu lay leet dañ lay laaj ndax neex na la wala ndax saful ndax mettiwul yooyu yëpp dañ koy questionner cliente yi di waxtaan ak ñoom ba suñu demee dañu am envie ki nga ki nga tiim nii di ko di ko létt létt nii lii mooy lan. Euh, maa ngi koy létt ay mees xaji kaare moom laa koy létt nii maman sama cliente sama xarit la aussi. Euh, yan yan yan yan genre liggéey ngeen di faral di traité fii nii comme nga expliqué gars yi pour sama classe gi nga xam ne xamuñu lan mooy létt ak valeur lu létt yan genre létt ngeen di faral di traité fii nii. waaw fii moom lépp luy coiffure lu jëm si jigéen dañ koy def dañuy def mees tresse euh, maquillage. perruque cérémonie lépp daal dañ ko fi def. Mhm. ci cérémonie boobu sax laay tax taxawee ak yow ndax ku ne xam ne instant bi Covid 19 bi li mu yàq dafa bari lool euh, euh, ban impact la leen yàqal instant bi ak yéen ñi xam ne yéen a géré li mooy salon. waa laal nañu moom laal nañu comme ni mu laalee ñëpp laal nañu parce que yàlla moo fi wàcce te dañuy ñaan yàlla mu jóge fi waaw parce que liggéey bi xaw na changé muy noonu daal métti na trop mais nag dañ koy. muñ loo bu baax a baax ndogal la. am ñi nga xam ne dañoo am sama classe gi nga fit nga xam ne ñoom corona wa ñàkk corona la ñu ñamale dañuy xew bu ñu amee xew amee doom dañuy dañuy dañuy xew est-ce que ci biir corona bi am ngeen ci ay cérémonie ay nit. waa am nañ ay cérémonie am nañ ay mariage ay baptême am nañ ko dañuy ñëw fii defaru après ñu dem am nañ ko waa. mën nañ xam seen salon bi fan la nekkee fii ci Maris après nga joxe waale numéro téléphone yi pour képp koo xam te ni bëgg na fi ñëw léttu wala nga def ay ah, soin de visage ak yooyu yëpp boo wootee ci numéro boobu rek di nga jot ban numéro la. waa mi ngi nekk Maris ko pharmacie Abdourahmane salon Adjaawa numéro bi mi ngi nekk 77 263 81 33. waxaatal numéro. 263 81 33 beneen numéro bi 78. 497 74 36 te uh-huh. am naa yaakaar sax numéro bi mi ngi daw seen bas écran ndax gars yi dañoo xarañ dañ koy dawal ci bas écran bi pour ñi nga xam te ni jànguñu ah, classe classe nante yi lañ bàyyee ñu xool ko ci suuf rek sama classe nga teel bàyyi jàng classe nante xoolee ko ci bas écran écran bi donc tey nag ñu ngi woon fi nga xam te ni mooy Maris nekk salon bi nekk fi nga xam ne mooy ah, côté pharmacie Abdourahmane salon Adja Awa ñu fekkoon rek ki nga xam ne mooy Maguette nga xam ne moom mooy gérante bi la gérante nga xam te ni métti na lool nag ah, mu jàpp ci liggéey bi muy dox lool ñu ngi nuyu baax suñu jigéen Adja Awa mu baax mi borom États-Unis kenn du moom tey wamoon loy wax Adja Awa lan lay doon. Ah, Adja Awa mom dama koy ñaanal bu baax baax ndax li ku ko xol xamne ne la mu nek ak man ci salon bi nek sama mak sama xarit sama complice jël lepp bàyyi ko fi bu ko neexon mënoon ne wala mu tej salon ne day tukki mais dafa jël lepp ne Maguette gérer salon bi sa salon la wa ma nek fek sama copine bi coiffeuse bi Seynabou. ñu nekk si liggéey bu baax maa ngi koy sant nag di ko baax di ko di ko di ko sant bu baax di ko gërëm waaw di ko ñaan di ko ñaanal yàlla <laughs> di ko ñaanal yàlla bu baax sama xarit boobu madame Sène Séeri monsieur Sène maa ngi koy sant bu baax aha day bëgg de <laughs> eh, xam naa ne xam naa dinaa dinaa dinaa fexeel tout ba mu ba mu wax ah ba mu wax moom moom G. dinaa fexe ba mu wax parce xam naa ne neen day daw mais dinaa fexe ba mu wax en tout cas kontaan nañu baax a baax ci ni nga ñu accueillir kontaan nañu baax baax ci teewaay bi ni ñu teewee fii lan mooy dernier mot yi. merci di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla feer bii nekk si suñu dëkk muy Covid. suñu borom bi jëlee ko fii ñu nekkaat suñu jàmm comme li ñu xam ñun senegal moom defe naa lii rek xam liggéey muy non dal mom lañ xam di ñaan yalla dal xéewal gu yokku saawaan baawaan. amin merci beaucoup kontaan ci yow ma ngi gëna a kontaan. tur bi naka la. ma do xé fa la tudd. et tay la mo tax tay nga tew fi tay ah fi mom sanon bu neexa ñew la ma sha allah dañu mën défar mën lett mën mën tek mën mën pirik dal ma sha allah deug yalla bo fi ñewé dal di nga kontaan. waaw ah. et puis ni nga gisee ni mu simple nii nii dafa ñëwoon jot li nga xam ne mooy périg périgam ñu bett ko nii rek fas yéene ah, mu daal yaatu lool te xam ne fii nii ah les clients wala les clientes sont les rois tey mun nañ xam naka ngay dundee ci biir salon bi ak ñi nga xam ne mooy euh, ñu ko gérer ak euh, élèves yeeg yëpp dëgg yàlla élèves yi moom ñu baax lañ mais Maguette mi fi Adja Awa bàyyi tamit moom tamit ku baax la dëgg yàlla boo ñëwee dalay accueillir nga toog mu may la ndox macha allah daal dëgg yàlla li nga bëgg daal dina la ko defal ni nga ko bëggee waaw. ba conseil boo jox ki nga xam ne mooy màgget nga xam ne moom la ñu bàyyi fii ban conseil lay lay doon ak élèves ah, dama leen di wax seen liggéey nañ ko gën a fonk rek jàpp mu dëgg rek wax dëgg yàlla macha allah ay borom baax lañ. élèves yi tamit dama leen di ñaanal rek ñoom tamit ñu gën a fonk seen liggéey ndax macha allah moom mën nañ seen liggéey torop waaw. kontaan ci yow. maa ngi lay nuyu. maa lay fay. Eh, mën nañ xam tey lan mooy sa liggéey fii ci salon bi. sanoo bi waaw lecture lañ fi def ay tres maquillage ak yoy yëpp daal lañ fi def. ñaar at yaa ngi fi wala ñaata mois yaa ngi fi fi ma fi doga def 1 an. yan yow yow lan nga lan nga gëna mën ci ci ci létt. Ah, dañuy mess dañuy def tres dañuy maquillage dañuy def lepp waaw. Ah. bi nga tim ni moy lan. li ay dabalal tres dabalay tey la ngay wax tey salon bi tey ak ak ak ki nga xam ne mooy Maguette gérant gérante bi ak ki nga xam ne mooy seen patron moo leen fi bàyyi tey la nga leen di wax tey boo amoon loo leen wax. ah mu Adja Awa moom Adja Awa bu baax la yaatal na fi ñëpp mu ñëw fekk fi gérante Maguette nekk bu baax tamit yaatal ñu fi ñun ñëpp ba ñu mën a puus daal ba jàll waaw. kontaan nañ ci. maa ngi doog a kontaan. ba na tey li ñu indi loon fi nga xam ne mooy salon Adja nekk fi nga xam ne mooy Maris boo ñëwee ba pharmacie Abdourahmane je pense que numéro yi di ngeen ko gis moom mu affiché noonu ci bas écran écran bi kontaan nañ lool ci teew bi nga xam ne moom lañ teewoon fii kontaan nag bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu accueillir fii donc di bëggee sama équipe technique ya ñoom prince sama gars yi maa leen bu baax jaa ngeen jëf